alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa ashaabihi tayyibin tahirin wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmiddin mbokki téléspectateurs yi yéen ñi topp seen chaîne Daara Koki TV ñoo ngi dellusiwaat di leen nuyu di leen ziyaar di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu baal di ko ñaan li nga xam ne nii moom lañu weesu ci fan yi koor gi yal na yàlla nangul ñu ko te may ñu kàttanuk ñu àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ci li nga xam ne mooy la des waaye tamit di ko ñaan mu may ñu weer wii ñu fekk koy ati at fekk yu ànd ak tal ak man mbokk yi ñoo ngi dellusiwaat ci seen émission bi nga xam ne ni mooy peexum koor ñu di ci ànd ak al oustaz Babacar Kebe yaakaar naa al oustaz Babacar Kebe nekkatul koo xam ne ku ñuy présenté la al oustaz Daara Koki TV mi ngi lay salaatullahi wa salaamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala bokki jullit yi bokki téléspectateurs yi fu mën di nekk ci biir àdduna biir Sénégal ñu ngi leen di ba si dajal suñu borom taala taala di ci yéen salaam di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. fii ci Daara TV. waaleykum ñuy jëlati néew ak ziar bi Cheikh Matar Ndar Lo mi nga xam ne mooy moom la yàlla teg daara ji ci ko jiite ci anam gu mu ci ayib yàlla ko yàlla doole kattanal. ñu hmm. yóbbu ko doon jotam doon jot jur ñëpp macha allah. Oustaz Racine la jox kàddu jërëjëf Oustaz Babacar Kébé. di kontaan bu baax ci daje gi nga xam ne moo leen dajewaat tey jii di la laaj tey moom ban thème nga ñu indiloon. waaye kay jërëjëf Oustaz Racine euh, ni ñu ko baaxoo defee ci tem yooyu nga xam ne ñu indi tey ñu ngi indi woon buur ak baadoolo. buur ak ba ak baadoolo. waaw buur ak baadoolo. allah buur ak baadoolo loo ñu ci indiloon Oustaz. waaw buur ak baadoolo liñ ci indi woon moo di euh, dafa am ku ñuy wax juxaa muy faral di jàngale jàngale yu am solo nee na bis dafa am bis dafa jot rek nee na mu farakante ak benn buur en tant que baadoolo moom moom juxaa hmm. baadoolo la moom mooy baadoolo moom mooy baadoolo bi hmm. yàlla dogal nag mu farakante ak benn buur hmm. bi mu farakante nag dem ba ci biir xam naa daal buur bi gis na boppam yëg boppam ci ni mu nekk buur baadala bi toog fréquenté ak moom mu bëgg koo istixfaaf bëgg koo minimiser. Hmm. tax mu jékki-jékki daal ko sama mbaam mi laa la bëggoon a jox nga jàngal ma ko ba mën a bind mën a liir. waaw joxaane ko waaw loolu de ci kaw nga jox ma ko féetale moom fukki at. fukki at waaw fukki moom boo ma ko joxee man ak mbaam mi rek. dana mën a bind dana mën a jàng. Hmm. ah comme buur bi nag da ko doon minimiser te saa waay jël na risque loolu mu daal koy jox mbaam mi. bu ko jox mbaam mi ba dem génn benn waay ruusaanu génn dab joxaa nekk saa waay nag dëgg dëgg def pire nag daf dëgg kenn mësu ko gis ba mel ne yow. yaw risque bi nga jël nii ak pacte bi nga signé teg buur bi nii kan moo mës a si benn pacte mel nii rek waaye loolu ci xiir nii. dëggantaan daal yow dof nga joxaane ko da ngay teey da laaj mu ne ko waa léegi laaj naa la. Hmm. mu ne ko benn ñett ñetti affaire moo am benn damaa xam ne fukki at moom buur bi benn buur bi dee wala man ma dee ci wala mbaam mi dee te bu ko defee <laughs> résultat benn du ci <laughs> <laughs> benn mu dee wala mu dee wala mbaam mbaam mi dee daan ne ko nag léegi nag yow mi man damaa. yeewoo diku hmm. ak yow mi ne da muus léegi rek bàyyi naa la nga xool ba xam mën a yow léegi kat moo gën a muus waaw <laughs> <laughs> <laughs> foofu lan moo ci mooy jàngat bi nag waaw foofu de lii jàngat bi mooy euh, maanaam toog fréquenté ko ko maanaam ku la nawloonte daal kuy mm. fréquenté. Mm-hmm. fréquenté la ku la nawloo. waaw mm. ah, kuy fréquenté fréquenté ku la nawloo. ok waaye dañ ciy jàngate eh, ne saboote baaxut. saboote baaxut. waaw. Mm-hmm. ndax kenn kon di jéem a saboote buur bi ak di ko jéem a istixfaaf maanaam minimiser. Mm. yooyu yooyu yëpp dañuy dañ ko ci jàng. kon daal nit ki wóor te saboote kenn. waaw ndax moom jël na mbaamam yóbbu jël na mbaamam yóbbu di ko ci jëriñoo. te du ma te du ko mos a jàngal ba mën a jàng te bis bu faatoo bis bu baax ma dee it ma dee na dong la koy wax fekk moom moo ko mm-hmm. kon jàpp na ne moo ko nax te fekk kee moo nga jàpp la ci jublu woon te bu ma sàgganu moo cay mm-hmm. loolu yëpp ay njàngam la ci biir. waaw buñ ko buñ ci bëggoon a xam njàngaleem uh, alquran wala boo demee ci alquran da ngay fekk yàlla di tere sabotage. Mm. tere ko góor tere ko jigéen kenn hmm. ko nekk ndax toujours kenn ku nekk ci góor mu jigéen buy saboote li ci gën a bari ki mbokkal benn jins lay faral di saboote góor li ci gën a bari moroom góoram lay saboote jigéen moroom jigéen moo tax yàlla ne laa yasxar qawmun min qawmin hmm. yéen góor ñi bu ci kenn di saboote moroom ja hmm. ndax man xase an yakunu xayran minhum mën naa am yéen ñi saboote ñi ngeen saboote ñoo leen gën dégg nga waaw wala dégg nga wala nisaa in yenn yenn jigéen ñi bu ci ñenn ci yéen di jëm a saboote seen i moromu jigéen. ndax xasee an yakun na xayra min hunna man mm-hmm. naa am yéen ñiy saboote. Mm-hmm. ña ngeen di saboote ñoo yaa leen gën. kon nga gis ne. Mm-hmm. ki doon saboote mooy buur bi jàpp ne moo gënum xel ki muy saboote. gis nga ne waa ji jaar na ci kawam ba jàll téyeeku. macha allah waaw. jërëjëf jërëjëf kon euh, nit ki loo ko féete féete kaw rek bu mu tax nga di ko sabote. loolu moom. njàngaleem alquran mi kon leer na naññ. macha allah macha allah jërëjëf al oustaz Babacar Kébé di la santaat di la gërëm. ok sukkandiku kon mbokki téléspectateurs yi mi ngi noonu moo nekkoon temu tey bi nekkoon euh, buur ak baadoo la. Mm-hmm. mi nekkoon sabotage baaxut. Mm-hmm. ak nit ki loo ko féete féete kaw. Mm-hmm. kon mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen dig daje incha allah ci yeneen émission wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.